d'accord ñu bëggoon xam déjà nag sa xamante ak Mahfouss déjà seen complicité dañ koy gis si boo leen di jouer seen xamante fan la jóge déjà. boo max suñu xamante yàgg na quoi parce que man dama doon moom mi ngi dëkkee woon neuf man maa ngi woon dix quoi. Mm. mooy fi ma nekk bi ma jógee Tivaouane sama kër maam. Mm. maam Dior maa ngi koy euh, ñaanal tamit fi mu jógee fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee mère Dior Ndiaye Dior Maba. Mm. ngi noonu parce bi ma jógee Tiwaawan si loxoom laa nekk ba yàlla def li muy def vraiment maa ngi woon dix mi ngi neuf mm-hmm. may seetaan vidéo yi des fois nii xam nga moom mu nekk un gars gaa humble cool boo ko messager da lay toon taf-taf mm-hmm. xam nga ñu teg mun ma nañ gisee quoi jaaral boo ñëwee poste santé bi affaire yooyu noonu ñu gisante premier jour tak bu ñuy gisante lañ def vidéo man ak moom premier jour ngeen gisante premier jour lañ gisante premier jour lañ def vidéo quoi mais man Hmm, ça ne m'est jamais venu l'idée de jouer et tout quoi mais yàlla moom lu mu dogal ci jëwu jaam bi kenn mënu si dara. après bi ñu defee vidéo yi. Mm-hmm. Assane Sène suñu caméraman bu ñaawul bi. naa mm-hmm. ngi koy bëggee doyen lañ koy wax sax moom mu toog moo doon filmer jamono jooju quoi. Mm-hmm. ok mun ma booy mun naa mun ma continuer quoi parce que man maay téye caméra bi xam naa li ci nekk quoi. toujours bien. boo ci xuusee mën nga am dara ma ne ko waaye Assane bàyyi leen moment boobu maa ngi valsé sama hmm. formation ak vidéo yi ok waaw <laughs> ah, loolu am na solo léegi déjà prank yi ngeen di yi ngeen di def yaax ñoom maxfu sax yooyu nan ngeen koy préparer ça vous prend combien de nan ngeen di jékki-jékki ne kii la ñu war a pranké nii lañ ko war a defee liggéey bi nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw déjà hmm. nan ngeen koy travailler parce que euh, booy xool euh, Mahfous ñun idée yi ça nous nii quoi dañuy toog rek xalaat ma xalaat wala ma xalaat ñu toog wootante wala ñu toog mhm. waxtaan ci xool li nga xamante si nii moo gën ñu jël ko teg quoi mhm. xam nga on prévoit rien duñ prévoir dara ko au fait booy xool. parce que dañuy gis ni boo leen di boo leen di pranké kenn dañuy xool koo xam ne moom moo ko gën a jege souvent kooku day ñëw. pour aider waaw parce que prank saar yi noonu lay doxee quoi. prank saar yi noonu lay doxee. parce que mënoo am accès direct ci artiste bi. donc mhm. tu obligé am prochain boo xamante si nii moo la koy jaay. Mhm. tegal la ko sur le plat sans pour autant moom mu xam que ni ñu ngi koy piéger quoi. parce que doo am benn sens ki ngay piéger boo xamee ni yow mii nii da nga koy piéger quoi. Mhm. parce que xam nga c'est mentir au public. tu vois mais des fois ci ay jafe-jafe yoo xamante si nii mhm. yàlla da ci da ciy teg loxo quoi. souvent yéen yéen jafe-jafe ngeen si siy gën a jànkonteel ci prank yi. non parce que jafe-jafe yi ñu ciy jànkonteel du dara lu dul xam parce que yow ki ngay pranké. xamoo ba xam tey jii nii waa waa une personne la boo xamante ni boo ko pranké ba pare dina nangu ni affaire yi dina dugg wala dara xam nga mm. des fois nga programmé nit ñu ñëw war a dem tournage mu décliné nga nekkaat ci di dawaat di woowaat keneen. xam nga mm. parce que ñiy joué ñi ngi ñi ngi leen di commencé xam ndànk-ndànk quoi tu vois. Mm, mm-hmm. donc on est obligé di jël gens yoo xamante si ni tey jii nii kenn xamu leen ah. et tout parce que tey man fu ma taxaw tey di pranké dañ naan ma zee jógal fii Mm. max fu mu taxaw di prank dañ naan ko max jugal fii waa bu ko xàmmee euh, waaw waaw waaw waaw Pape la gars yi ñu ngi koy commencé waaw gis nga nice keroog rek maa ngi ko koy wax ko mm. mais bon Prince Star daal mi ngi noonu dañuy ñëw affaire dañ koy def ak ak ak ak ak xol bu yaatu sans pour bu ñu xoolee sax gis ni lii nii day yàqal artiste bi ñu pranké mm. wallaay lanzim duñ ko dugal mais est-ce que mës ngeen pranké benn star ba pare mu mer ngeen négocier li nga xam ne moom mooy affaire bi dina dugg wala du dugg. am na. pranké nañ fee star man man parce que man le mot star sax xam man ñun dañoo nekk nit boo xamante ne nii xam man naturellement man dunduma loolu quoi. Mm-hmm. que star moom xam nga man man dama def daara kon li ma frége bëriwul quoi. Mm-hmm. man j'ai daara xam naa laay fu mbedd quoi en fait. Mm. am na loo xamante ne nii li may sonal du bëri moo tax xam nga star sax gars yi ñu naan star nii dama naan non damay bañ. bëgguma mm. quoi tu vois. Mm. mais prank nañ fi nit ñu pare devant les caméras mu ni waaw d'accord nice ñu pare mu ni non du dugg. di wax ak ñun nit ñi non du dugg affaire yooyu noonu ba ci wax ay affaire de justice je sais pas quoi. kon boobu mujjeewul dugg. dugg na parce que ñun tamit suñu preuve la ñu yor quoi tu vois mënuñu la prank devant tout le monde nga taxaw ni kat ah mm-hmm. wax ak gars ñu pare. Ah, ci caméra bi la wax ne nice après bi ngeen fayee caméra yi doo comprendre quoi. des fois tamit artistes yi am na ñoo xam te ni tey jii nii xam nga Sénégal dafa métti quoi duñ la yombalal sa liggéey. Mhm. dañu xam ne lii buñ ci tegee tey loxo mu dem mais bon il préfère xam mhm. toog bañ ci teg ci bañ ci teg seen loxo et tout mais ñun moom xaaruñu kenn ci lenn. Mhm. ñu ngi liggéey. mais mais artiste boobu kan la woon. non loolu xam tey jii nii. man moom xam naa ne xam naa ne Nabou Touré moom bu nekkul Nabou Touré dina ma jaaxal. non man Nabou Nabou Nabou kooku yaay Fall la billaay yaay Fall la. Hmm. kooku kooku kooku c'est une personne humble que que que j'apprécie beaucoup quoi vraiment billaay. parce que vidéo bi ngeen ko pranké dañu xool ne même après chauffeur sax dafa a mere chauffeur bi dafa wane carrément. non bi moom lépp cool quoi hmm. parce que le début ñoom ils hmm. avaient que chauffeur bi nee na mujj gi sax dafa mujjee changé oto bu génnee ñu naan eh saa ci kottu xale baa ngi nii saa ci kottu xale baa ngi nii. dire que ni sénégalais ñoom la majeure partie li ñuy gis ci écran yi la ñuy jàpp ne xam nga c'est c'est si prank yi ngeen jot a def ba instant bi yow ban moo la si gën a marqué. man prank yëpp. marqué nañ ma mais bon biñ ma def tamit. je m'y attendais même pas billaahi lu may wax waa koñ ba kay laa xamul loolu ba léegi man ay film la ma dikkee. kon sa bos moo la gën a marqué. non sa bos li tax mu marqué ma parce que je ne m'y attendais pas mina si sa mënin lañ la fekkee daal ñu noonu tamit billaahi nga mën galgal loolu di ko defaate ñu fekk la fa roof la galgal daaj la mhm. tamit loolu qu'est-ce que tu vas dire mhm. looy wax waa koñ ba mais foofu aussi nit ñi xam nañ réellement euh, kan mooy Zé parce que yaa ngi gis yaa ngi naan lii bokkul ci jeu bi nit ki mu ngi dóor yaa ngi naan non amul droit dóor artiste bi yaa ngi doon protéger ñi nga xam ne ne souvent mhm. ñoom ngeen di panke donc c'était juste pour wane kan mooy Zé te nit ñi aussi ci vidéo boobu xam nañ réellement yow yaay kan. surtout si si parce que nit ñi loolu noonu ñuy gis nañ jàpp ni loolu mooy Zé quoi. Mm. parce que man naturellement ñi ma jege xam nañ ma. Mm. sam benn euh, sister daf ma joor mun ma ndeysaan kooku assisté na ma côté bu ne maa ngi koy bëggee bu baax a baax joor joor Ndiaye Cissé. Mm-hmm. mu ne ma dama lay seetaan rek nii c'est typiquement Zé quoi gaaw a mer xam bëgg bëgg parce que man je suis une personne boo xamante ne nii laa mel quoi. waa waaw nii rek droiture laa xam quoi aw ma jaad jaadal aw ma dara. Mhm. lu ma su ma la meree da nga koy xam ci sama kanam quoi au fait. mënuma mhm. tricher. je comme saa koi je vis comme ça avec mais proches et tout. Mhm. samay parents sax xamoon noonu laay dundee ñoom quoi tu vois. mi ngi noonu quoi. ñoom lu ma sentir euh, lu ma bu ma toogee wala ñu wax la loo xamante ne nii lii xam naa ne lii du dëgg dama naan leen. lii du dëgg. lii mooy yoon ak lii mais dans le cadre du respect quoi. du ma kenn de respect mais kenn du ma manqué de respect quoi. ok donc yow nangu nga ne daanu nga kon baax na. Euh, nga nekk acteur non daanu mu dama def quatre appuis <laughs> quatre appuis laa def. waaw ba tey nangu nañ la ko. nga nekk déjà acteur gis nañ la aussi ci série bi nga xam ne moom la ñuy wax impact. Hmm. est-ce que ci benn maison de production. waaw maa ngi woon euh, bëri na apparition parce que booy xool man euh, Mina. Hmm. gars yi. li ma sam benn copain di wax quoi Pape Thiam naan ma gars yi weccit bi nga leen di jox quoi li nekk ci calpe bi weccit bi nga leen di jox mais bi yi ba léegi génnagul. dinaa mhm. man li ma mën dëgg dëgg dëgg xam nga. Mhm. wanag ma ko sénégalais quoi. man def naa riiru tribunal. Mhm. ak pas quoi. mën na ma seede Adam. foofu jaar naa fa jàng naa fa lu bëree bëri. mu nekk euh, metteur en boo xamante ne nii respecté naa ko beaucoup jàngal na ma lu bëree bëri quoi. maa ngi koy saluer de passage parce que man je suis reconnaissant. su ma fa jàngul dara dama naan ma fa dara mais Adam Jean Michel jàng naa lu bari bëri bëri seen côté ba tax na tey jii nii am na yoo xam ne des nii tey du ma sonal impact joué naa fa mais riiru tribunal laa njëkkee quoi. Hmm. riiru tribunal foofu amul ay répétition yenn wala yenn yi da ngay dem tey jii nii li nga fekk sur le terrain ngay joué. Hmm. et ça un artiste quoi xam nga tu vois. Hmm. yooyu noonu def naa ko fa def naa riiru tribunal impact def naa aussi tamit euh, face cachée du réseau ak ay artistes yu mag. yoo xamante si ni mooy loolu mais signé gu ma benn maison de prod boo xamante si ni tey jii nii ñooñu laay liggéeyal quoi. ci impact ci nga ci nga dooroon Miss Wiri Wiri Nabou wala du ci oh boobu. non <laughs> mais mais dégg naa dóor bi nga ko dóor. Mm-hmm. tayoo ko sax parce que ak doole nga ko dóoree. non parce que tey booy xool euh, comment dirais-je Miss Touré euh, avant ñu ci jouer dañ def filage. Mm-hmm. te man une personne boo xamante si ni du au moins au moins demi mesure ci lu may joué. Mhm. laajal ñu may joué yondoo ay Amidou xam Pape Cham et autres Mansour gars yi mooy joué ak ñoom ma leen waree dóor dama leen di duma ba njëkk ko. Mhm. maintenant man dem naa fi benn casting di joué ñu ni ma comment dirais-je ñu ni femme bi sama jabar la quoi dama ko war a annoncer que ni damay takk deuxième femme. Mhm. pour essayer de voir sa réaction casting ñëpp toog. Adam du ma bàyyi ma fenn euh, réew tribunal mm. ma ñëw mais Mina bi ma ko annoncé bi mu ma dóoree mbéj sama lii dafa dugg sama bëñ bi ba ba toj sama signe bi dagg nice ma muñ ko camoufler ko joué moom parce que xam nga émotion boobu noonu la gars yi soxla quoi tu vois mm-hmm. xam nga yi ñu bëgg nekk acteur apis nii nii mais c'est pas du tout facile quoi mm-hmm. xam am na yoo xam des ni tey jii nii loo jàngul doo doo loo loo doonul taalibeem doo doon doo doon sëriñam quoi tu vois mm, donc jouer c'est pas facile quoi mais ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax xam lépp lu ñuy def dañ koy def ak modestie it mm-hmm. ak euh, wax en toute modestie ñun li ñu frége bëriwul quoi mm, dëgg la mi ngi noonu dundu leen affaire star waaw mi ngi euh, gis nañu aussi il a quelque temps intégré nga li nga xam ne ne moom mooy 2STV euh, ci émission bi nga xam ne moom moom la Pape Sidi Fall di def mm-hmm. donc mën nañ xam ban rubrique déjà ngay gérer foofu ak nan nga def ba dugg ci émission boobu. Mhm, parce que émission boobu noonu au début Good Morning. e c'était Mahfous quoi. Mhm. Mahfous la ñu woowoon pour mu ñëw di def euh, rubrique yooyu noonu. caméra cachée yi ñuy def xam ñu koy yóbbu foofu noonu di ko jaalale. parce que nekkul public bi seetaan YouTube mooy nekk public bi seetaan télé. am na ñoo xam des ni dañuy tel nekk télé dañuy nekk YouTube mais am na ñoo xam des ni ils sont plutôt sur YouTube ñii plutôt focus sur euh, la télé quoi. Mm-hmm. donc du ko émission bi mu amee Mahfouz doon dem le début ñuy ànd des fois di partager plateau yi man moom Pape Sidi. Mm-hmm. ñu dem ba ci biir mu woo ma ni ma booy ma ne ko amoon ah, ma vu ko yow yaay joué te yow yaa gën a jekk ci interpréter euh, affaire yi et tout mun ma kon def chronique bi kon demal ngay def émission bi quoi. Mm-hmm. dañ ci waxtaan ba juboo ci. ma ne ko ok moom it mu doon borom baax xam nga ah, ñu yaatal ci loolu. ma dem waaw gis nga may dem di def émission yi Pape Sidi di ma intégré xam teg ma mhm. ci axe mu doon Baye Fall doon nit ku baax a baax a baax vraiment. Mhm. Mhm. xam ma moom moom wax dëgg fa yàlla wu ma fayam. lépp looy ñoo di ci Baye Fall rek boo demee xam nga di nga ko fa fekk ma dem mu intégré ma nice ñu teg. di tourné di tourné ba tey jii nii xam nga yàlla def li muy def quoi mi ngi mu ngi waaw millions yaa ngi dugg nànk nànk million yi ah Baye Mina yow yow yow millions yi ñi ngi sant yàlla rek. wóor na ah. yàlla mais bëgg nañ ay millions quoi. Ah. mais mais prank bi nag ñu bëri nee nañ des fois day am teg deal am. Mhm. ay nee nañ des fois day am ay teg deal si suuf. Mhm. am na ñoo xam sax dañ dañuy prank mais dañuy xam ne dañ leen di prank dañuy jouer le jeu est que dëgg la. Mhm, parce que ñun moom bu ñuy euh, pranké du ñu demee ak ay soit. griffer artiste wala xam nga teg deal wala de ce genre non non. Mhm. ñun on descend sur le terrain avec xam euh, la naturalité quoi en fait tey tey du wax dañ ko teg deal. Mhm. Jules César du wax dañ ko teg deal. Mhm. Pape Sidi du wax dañ ko teg deal kaneen ak kaneen quoi tu donc tey noonu la fay demee quoi. ñun loolu la ñuy sur le terrain mais sénégalais ñoo nekk ñoo xamante ni tey jii nii bu la bu bu ñëpp mënuñu d'accord quoi ñëpp mënuñu tomber d'accord ci li ngay def. parce que bu ñëpp tomber d'accord ci li ngay def rek toogaatal nga tiit quoi. Mm-hmm. ni ah est lii nii kat waa dëgg la quoi en fait dara. dëgg ñun moom habitué nañ ci ay critiques habitué nañ ci ci ci ci ci yenn euh, tey mën nañ xaa gisaguñ leen nag ngeen laaj ci politique bi benn politique gisuñu ngeen. pranké ko dañuy gis woykat fecckat journaliste beex yooyu dafa nekk lu sensible wala bu nekkee yéen Sénégal bi yëpp ngeen boole wala donc yaakaar est-ce que mën nañ xaar ne surtout nag ak période élection yii nii est-ce que mën nañ xaar ngeen planqué kenn. waaw waaw waaw parce que parce que parce que booy xool tamit ñu naa Prank Star dañ ko ñun dañ def concept bi ba pare xam après moom ay ouverture yoo xamante ni yow da ngay toog da nga naan sax lii c'est c'est c'est impossible ba tax na tey jii nii amul kenn koo xamante ni day rëcc. Mm-hmm. saxaay ji fàtte woon caméra bi sànq nii sax rëccul. Mm-hmm. moom ñëw ñëw ñëw tournage <laughs> ñëw xama war ma jël di fàtte caméra bi nii moom sax rëccul laa lay wax kon ku ci nekk waa sa vendredi daal bu yaboo nga koy nelawaalee di ko xaar parce que mii ñëw yow mii sax rëccoo mi na man kenn xamuma ci Sénégal donc man moom alhamdulilah <laughs> même euh, ñi sëriñ yi aussi dëgg la am na ci ñoo xam ne ne ñu oyof lañ donc est-ce que mën nañ xaa tey ngeen dugg ci benn këru diine def prank boo xam ne aussi du prank pour wàccee dayo sëriñ bi walla dara mais pour ñu nit ñi gën a xam kii kan la est-ce que mën nañ ko xaa tamit. Euh, ci côté religion bi quoi. parce que ñun booy xool euh, waa ici au Sénégal y a Jamra quoi tu vois. Eh. <laughs> sama papa jooju maa donc ñun lépp lu ñuy def dañ koy teg ci éthique ak déontologie quoi tu vois mm-hmm. de ce fait ñun euh, kilifa diine yi gars ñu ngi ñu koy suggérer tout mm-hmm. mais ñun daal ñu ngi toog daal di xaar quoi bu leeree dinañ ko def ci mm-hmm. cadre Cap Foire parce que ñëpp bokkuñu vision tey kilifa diine bii mën nga ko def ñi toog ni ah yéen ni ngeen di def tegginewul wala dara te Sénégal dañu fonk côté diine quoi donc on préfère xama ñu toog Mhm. cool quoi côté boobu noonu bañ a def dara loo xamante si ni dañuy xeebee vraiment. est-ce que mës nga def prank teg na yaa ne nit ki xàmmee la kap mu capoté. bien sûr du jeex. du jeex rek <laughs> mina billaay je me ba ci avant ñu def prank star yi caméra cam caméra cachée ñu doon def cam de rue yi mos mhm. nañuy tourner côté kii bi waaye maris bi mhm. benn kilifa génn nii xam sol Mm, yëre kilifa nii xam nga njëkk mhm. wékkoo ay kii affaire yooyu noonu kaalaw mhm. ma ñëw taxaw di ko questionné di wax ak moom juste pour xool réaction am mu mhm. déglu ma déglu ma ma ratatatatatati ba taxaw mun ma see ma ne ko mun ma see jugal sama kanam laa la wax démb rek laa lay mujjee di seetaan dama lay seetaan bay bëgg a dee nga bëgg maa def sa yii dimbali ma baal ma bàyyi ma dem waay <laughs> xam nga tu vois mu nekk des choses yoo xamante si nii waa waa waa des fois ça fait plaisir quoi parce que yow li ngay def yaakaar ni bon demul fenn wala xam nga koy def juste pour le plaisir am na ñeneen ñoo xamante si ñu ngi koy utiliser waa di ci bëgg xam nga di la ci bëggee bu baax a baax a baax